di siyaare yeneen kilifa yi teew yi teew yëpp xam naa duma may lim ñëpp waaye bu ma tuddee ñeen rek mu yóbbaale ñëpp di siyaare bu baax sëriñ Abdou Samad Mbacke mu sëriñ Sohaybu di ko sant moo itam di ko gërëm ndax seere ngeen ko léegi waaye li ngeen ci seere li ngeen ci xamutu ko ci taxawaayam ci yoon wi taxawaayam ci lislaam ak taxawaayam ci muy taxawoo suñ daara yi def ko ittee nitam day mel lum suñ tabañ la ndax waajuram sëriñ Sohaybu sëriñ Tuubaa da ko jëloon féete nag alxuraan mu def ci liggéey boo xam ne ba àdduna tukki kenn du ko fàtte ñi mu def ci ñoom alxuraan ak ñi mu def ci alxuraan ñu defal ko ci nit boo ko doon xool kon nag bu yàlla defee mu bokk ci njabootam di taalibeem wëlbatiku alxuraan ñorowaat ko noonu muy soñ muy sonn ci yéen ba day mel ne bu doonu syndicat yi doo fu fu nit la fu lu ko naqar rek wala mu jaaxle balaa seeti sëñ wala mu seet ci moom la jëkke ñëw te bu dikkee bu dee loo ci moom la yam kenn du ko yëg mooy ca taxawal bo kon loolu nag cër liggéey bu rëy la kon ñu ngi koy ci barkeb Sëriñ ba taxawaay boobu nga xam ne am na ko ci yoon yëpp fépp fu mu dégg wala fu gis loo xam ne xam ne ne luy defar la du ci xaar kenn média bi nga xam ne ubbi na ko bu yàgg tuddee ko as laa koy seetlu bi nga xam ne ñu ngi koy def di feeñal mag ñi njëkk a topp Sëriñ Tuubaa ndax ñooñu xam leen dafa am ndax mooy tax ñu xam sëriñ bi te am nañ ci ñoo xam ne ñëpp xam ne leen waaye am na ci ñoo xam ne kenn xamu leen da sëñ Buxaari daa firi bi ka sa altu maliki kaw niya nuura zaliki wasil jisa bi naasiti bi man jala wal mufhami am am na ci ñoo xam bi ma jëlaat rek am na ci ñoo xam ne fa njëriñ te am na ci ñoo xam ne seen àgg seen borom kenn foofu fu mu kon di leen fàttali ba nit ñi a xamal ci ñoom xam def leen seen royukaay yi loolu lu am solo kon nag moom motuñ motuñ seere ci moom yaa dafa am mel suñu mel mbokk bu baax sëñ Basiir Buso yàgg ne dama ay quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze dafa daa tooñ li wax naa nit di woy genn wàllam mooy sëñ Buso yaay suulu Saalim loolu la daa bu yàgg li wax yàgg na ak léegi mu toll ci fanweeri at te dara mosu ko soppi kon ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal bu baax yàlla suñu boobu déggal ko te mot lii yéenam ci ndax xam nañ ne suñu tubaab rek ko ñor ci lay xëy ci lay kontu loolu nag ñëpp lu ko defal léegi